salaamaaleykum sëñ ñu ngi lay nuyu. ñoo la siyaar baax. tur bi la. Moustapha Gueye. Moustapha noo gisee couvre-feu bi. couvre-feu bi ah couvre-feu bi de mi ngi nii rek ñoo ngi jàng dama ay jàng dama métti nag ndax fii moom fi laay toog waaye gars yi heure bi mu jotee moom dana def nu ne pour àgg seen kër waaye nag moom nañ ci nekk ba keroog muy jeex rek ndax dañ ne misère bare ngir corona bi kon nag nañ ci nekk rek ba keroog ñu fi jëlee rek waaye gars yi moom son nañ lool ndax ba heure bi jotee moom te gis kenn ku ne def nu ne pour pour bëgg a ah couvre-feu bi de ah wax dëgg yàlla metti na torop ah, vraiment parce que euh, ñi ma ci gën a yërëm ñi nga xamante ne dañuy jógee fu sori di xëyee fu sori en plus euh, boo guddee wàcc embouteillage bi mën na la tee balaa nga àgg vingt et heures loolu daal moo ma si xaw a jaaxal tuuti. vraiment couvre-feu bi gars yi li ñu def daal arrangé wul kenn am na ñoo xamante ne seen liggéey guddi gi la ñuy liggéey te guddi gi la ñu amee xaalis vraiment couvre-feu bi daal ma li ma gis daal amul sens waaw amul vraiment loo xamante ne. waaw li mu def moom xam président la lu mu def moom waaw loolu mooy dara nekk si comme président président loolu rek di nga ko topp rek mais vraiment couvre-feu bi Sénégal arrangé wu Sénégalais ñun am na ñoo xamante dañuy xëy suba ba ngoon li ñu war a am sax pour pour ñu lekk sax problème la mais loolu métti na trop vraiment métti na. couvre-feu moom amul benn importance ndax ñun ñii sax ñun arrangé wuñu ñun dañuy liggéey fii nii dañu fi yor ay liggéey jàmbur parfois dañu obligé ay 8 heures lañu wàcc dañu daan nekk ba ay 0 am yoo xam dañu oblige sax di fanaan si marché bi couvre-feu bi amul benn njariñ depuis bu njëkk ba ak bii nii yëpp même chose amul benn njariñ nit ñi dañu dox dañu dox ba bëccëg gi guddi gi ñu leen tëj te guddi gi ñu leen tëj feebar bi guddee bëccëg lay dox bu fekkee am na sax feebar bi sax gisoo kum dal gis gisoo sax koo xam testé nañ ko te Sénégal fii nii nit ñu bëriwuñ nit ñu bëriwuñ xanaa bañ dalee testé ba léegi sax xanaa buñ testé wul xaaj bi xanaa dinañ tas dinañ tase xaaj xaajaat bi te mosoo gis koo xam ne danañ la tase nañ ko couvre-feu bi amul benn njëriñ ñun dañu yàqal suñu liggéey ak ñu doon liggéey guddi gi yëpp di fortaat ñu fii dañu fi doon nekk ba zéro heure dañu obligé dañu wàcc ay huit heures wala dañu obligé bu ñu amee liggéey yàkkam ci dañuy fanaan te yëpp Macky Sall moo ñu ko teg Macky Sall yërëmuñu bon couvre-feu boobu doon la loo xam ne gaan métti noonu trop rawatina ñun tailleur yi ak nga xam ne ay taximan lañ am na ñoo xam ne guddi la ñuy liggéey ay siiru man lañ loolu la ñuy yoree seen soxna yor seen waaju man nag waxuma kenn mag Sall lay wax na teyle boppam pare bëgg noo teyle loolu du ñu nangu ñu sénégalais ñun fii la moom suñu borom subhanahu wa taala wàccu ñu fii leneen lu dul jaamu yàlla mais ñëwuñ fii pour politique te magi politique bu mu nekkee moom ci boppam moom la war a wàcc suuf gis nga affaire gouvernement bi ak leneen yi ñun gëmuñu loolu xam lañ nga dama bëgg moom ci boppam nu bàyyi jeunes yi liggéey ñun ci la ñu yoree suñu soxna ci la ñu yoree suñu waajur ci la ñu dimbalee suñu bopp nit ak amul keneen ku dul mbokkam kilifa yi diine xam ne ñoo nekk Sénégal ñoo war a wax mëkki mu bàyyi affaire yu muy def lii du yoon grand nañu xam ne dëgg. waaw mais sant ci yàlla rek delloo ci sant Serigne Touba bu baax mais man moom blâme ma gouvernement bi quoi man jeunesse bi laa bëggoon blâmer ak yenn parent yi quoi ñu conscient tuuti si seen life parce que tey ñi ngay gis nii ñuy taal ay pneu si mbedd bi ak ñuy saaga ak ñuy mer. ñoom lañ doon jox ay 5000 ak ay t-shirt ñuy dugg si kaar yi di dem di ànd ak politiciens yi quoi man ñoom laa xaw a blâmer tuuti si affaire bi quoi mais pas état bi quoi. pour man nit da nga war a conscience si sa life quoi ba pare parti bi nga xam ne ñoo xaw a néew doole ci Sénégal dañoo mel ni ku àndut ak seen xel gis nga nit bu la yàlla tegee nattu muy nga xaw a néew doole tuuti da ngay utiliser sa xel sa xel si sa moyen si lu bëri quoi parce que li lay jariñ du sa moroomu doomu aadama moo la koy defal. boo xoolee yenn quartier yi doo leen dégg ñuy ñuy blâmer de wala ñuy génn di taal parce que ñoom ñu ngi si jàmm li métti yëpp si ñu ñàkk ñi lay féete si banlieue bi ñoom ñooy am problème mu transport ñoom ñooy am problème mu lekk ñoom ñooy am problème mu faju lépp loo gis si àdduna muy métti rek si ñoom lay dal. couvre-feu bi moom c'est pas une solution. waaw pour maladie bi. waaw parce que boo xoolee nit ñi matinal bi la ñuy circuler euh, parce que guddi gi daal amul njariñ pour ñu def couvre-feu vraiment gisuma ci benn importance. couvre-feu bi moom dañ koy defee amul importance. parce que mënuñoo tëj nit ñi ñunuñu euh, wax ni feebar bi day dox guddi lay guddi lay dox bëccëg yi day nelaw te alors euh, nit ñi dajaloo si marché yi ak si yeneen yi am ñoo ñoo gën a bëri te guddi gi daanaka période yi période seddaay la nit ñi duñ génn lu bëri doo xoolee am couvre bi ni ñu ko doon defee amul sens mënoon nañu ko def nit ñi mu mu ñu wàcciloo nit ñi population euh, armée bi wala soit gémé yi wala soit ñooñu noonu ci bëccëg gi ñu takkaloo nit ñi masque force xam nga loolu moo ëppoon sens xam nga

imagine toi ñëpp 17h la ñu profité pour pour mën a dem ñibbi seen kër yi léegi balaa ñoo dem di ñibbi seen kër yi comme ça day saturé daal day saturé transport bi mooy saturé parce que ku nekk day njëkkantu di ñibbi balaa balaa heure bi di kii di jot moo tax. boo demee ci aéroport nga gis leen da nga leen di yërëm parce que dañuy buuxante oto dañuy njëkkante oto am na ñoo xam dañu obligé mujjee di dox wala soit dañu xaajale yoon bi ñu demee yoon bi parce que bu dee góor yàlla dañ koy def sport waaye bu dee soxna mënuñu ko. te fii ku ne day wuti lu mu jox ak njabootam seen Macky Sall mënul garanti ñëpp dépense benn jour mënu ko garanti nit ñi bu doon mën na ko garanti nit ñi bu ne ko tëj nit kon waa ñëpp dañ si ànd ak moom waaye mënuñu ko luñ mënul kon bu nga forcé askan bi askan bi sonn nañ gars yi dañoo sonn waaw kenn ko fa mu jëmoon sor rek ak télé bi embouteillage mooy bëri rek ndax oto yëpp dañu bëgg a jugandoo loolee problème bi kenn ko bu a yegg fa nga jëm man mi nekk fi jaay café dama ci xam dara dañ naan ma gaawal gaawal heure bu jot na fii ñun ñëpp dañu obligé dañu teel a wàcc li ngay liggéey sax du pare da dem bàyyi ko fi da ngay obligé teel a wàcc sowaat nga nga fajarwaat ñëw xëy pour balaa heure bee jot nga dugg sa kër fitna la ñu teg fii boo wàccee oto sax boo ñibbi doo ko am non loolu moom rafetlu ma ko waa loolu moom du yoon moom gaay yooyu defuñu dara Macky moo def affaire bi moom ci boppam mooy jiite gaay yi moom mooy borom mooy jiite réew mi moom la ñu war a waxal moom la am ak affaire mais ñooñu amuñu ak moom affaire ñoom ñu ngi tooñ man sama ko quoi sama gat xel waaw ñu ngi tooñ man suma ma ñu bàyyi yëpp mu sedd te par la suite ñoom su fekkee ne dañoo bëgg affaire nañ dem ba ci pale mbaa ñu wax ak xam ne carrément ñoo jege gars yi ñoo jege mag yi mu wax ak moom dëgg ñu wax ko dëgg mu bàyyi lépp mu sedd quoi. mais dafa miti man tey jii nii man man nii dama doon obligé di nekk si marché bi fii ba ay une heure minuit ma génn jël taxi ñibbi léegi damay damay obligé vingt bu jotee damay dem ñibbi vingt bu jotee dañuy tëj atelier bi dem ñibbi te boo génnee si tali bi même kaa nga fekk say dix morom ñoo ngi foofu di rang te oto yi pa même nit yi nit yi nga xam dañuy yor seen i particulier da taxaw si tali bi ba sonn pour bëgg ku la aider jullit lu ñu wax si moromum jullitam dëgg-dëgg war na am même bu fekkee état bi teg na am na benn loi bu mu teg bu arrangé wul mu sax ci population bi entre jullit ñun ñu dimbalante. yoon bi day xat waaw yoon bi fii ba HLM waaw nga dem ba Sandaga am na ñoo xamante ne seen oto am na ñoo xamante ne fee fee lay ñibbi ba ba Tingéej mais am na ñoo xamante ne pour ñu kii sax problème lo am na loo xamante du yoon te ga yi ñi nga xamante ne 22h la ñu wàcc 23h waaw ñu wàcc mais loolu teguñu ko fenn waaw loolu du yoon waa loolu nag moo waral couvre-feu bi metti quoi parce que couvre-feu bi bu fekkoon ne tey euh, yoon bi dafa yaatu boo wàccee nga teel a yegg fi nga jëm moo tax man su ma sañoon bu ñu mënoon a yokk heure bi ñu yokk heure bi moo ma doon gënal quoi parce que ñu bëri dañuy jógee fu sori di liggéey fu sori di wàcc fu sori te embouteillage bi dafay metti lool loolu daal moo ma si xaw a jaaxal quoi.